tànn nii jërëjëf euh, euh, euh, Jacques Oumane Préda donc damay jox sama rakk ji rek mu jàkkaarloo ki nga xam ne rek moom moo di Oustaz Souleymane Diop Talasuus ñu dem ci li xam ne rek moom moo di masala Dieng madame Dieng Sall mi ngi noonu chéri dafa la neex <laughs> mhm. voilà. Mhm. ànd ak Jacques ak Abdou Top ñu tegal ñu question bu njëkk bi Oustaz di tontu. salaamaaleykum waa Walfadjri dafa am question bu ma leen di laaj bu ma jaaxal ndax suñu borom kër yi yàlla lislaam may na leen ni ñoom suñu meree ñun en tant que soxna ñoom ma am nañ droit gàddaay lal ba ba nga sekkateeg yow dara ndax loolu yàlla moo leen ko may léegi may laaj ba xam ñun tamit yàlla lislaam may nañu ñun borom ñun en tant que soxna jigéen yàlla may na la yow sa borom kër bu la tooñee ngeen meroo am nga droit gàddaay wàccalal ba bàyyi ko ba nga sekk moom dara parce que góor ak ni mu mel man bokk di sama jëkkër dama koy toppatoo ba mu normal di ko defal lu nekk di ko defal lépp lu soxna bu baax di def mu dem dem gis xale bu ko joomal fële nekk ak moom bu ñëwee damay xuloo ndax foo nekkoon foo defoon lii xam nga maa ngi koy toppatoo bu ñëwee day mer ak man sama li ma a jox sax du ma ko jox day wàcc lal bi jël njëganaayam tëdd ci suuf wala mu dem ci saal ba tëdd xuloo la ñuy fanaane parce que loolu noonu yàlla daf ko ko may mu naan am naa droit takk ñeenti femme xam nga góor ak ni mu mel ni mu saay saayee mi ngi jël favoriser affair bi ko yàlla may question boobu daf ma jaaxal est-ce que man mën naa def loolu <laughs> non non waaw oustaz ñoo déggandoo question bi nee na comme góor ñi am nañu sañ-sañu gàddaay moom nee na moom tamit muy laaj moom tamit est-ce que am na sañ-sañu bis bu meroog jëkkëram moom tamit mu gàddaay wàcc lal bi saa am na sañ-sañ damay laaj noo tey saa saa laay la man saa laay bàyyi mu wax am sañ-sañ boobu c'est pas possible quand même ah. déedéet amu ko xalil lii ah, ah? ndax yanu na maanaam waaw damay dégg de ñu ne góor moom yàlla may na ko loolu <laughs> waaye nag góor la ko yàlla may mais sama xam-xam yeggul bu ko borom këram soxlaa bu kiwee yàlla da koy rëbb loolu kay gis nga Sénégal dafa am nu ñu àtte woon Sénégal te eh, oustaz ah, oustaz da nga maa laaj non Sénégal dafa am nu ñu àtte woon noo xam ne man si contre da ngay nekk sa diine lay wax sa jabar waaw d'accord da nekk sa jabar mu nekk sa nawlay waaw bu demee nga ne ko foo demoon boo demee bu la ne foo demoon ay di buuri sarax benn deuxièmement booy wax ak moom bu noppee nga ne ko man maay wax ak yow nga bañ maa tontu bu waxee nga ne ko man maay wax ak yow nga may tontu fii aussi yàlla may na jigéen yàlla may na góor bu jigéenam amee nu mu doxalee mu gàddaay ko wàcc lal bi foofu aussi est-ce que yàlla mayul jigéen vice versa. Mm. la mu may góor ne moom it bu jëkkëram euh, euh, jàdde yoon wala mu jeng moom it mu gàddaay ko wàcc lal bi. loolu laay laaj. leen day laay njëkk a ma jàpp hmm? ci rek ma ci hmm? bi toog suñu wet am na ñaari mbuus te fi mu jógee suñ kër ga la jógee <laughs> solution sàcc waaw fi borom ataaya ñaari mbuus ah day suñu xel ah. daal suñu xel tey saa sew sew bi may wax mooy waaw ndaw si am na foo xam ne bu leen ku ko bañal hmm. am na am na lu mu wax ci biir élément bi sew sew la waaw jëkkër ji jotewul ak moom ci ay xuloo xuloo yi de dani jëkkër ji day dem doxi day wax ak ay xale yu jigéen est-ce que galgalu fa kenn ba léegi day posé question nee na bu ñëwee day wàcc ci suuf la mu soxla du ko ko jox léegi bu waxee mu xulóog moom est ce que jotul it waa ji bu fekkee day taxawaar jabaram amul droit téye boppam l'islam du ko may mu téye kon waa ji day daw jàng kon waa ji day daw jàng sooy yow yaay oustaz da ngay atte ci biir damay laaj dama laaj sa xel ngay dama laaj dama laaj dama laaj parce que attention li ñu wax ni lu garaaw dama laaj loolu la waa ji day daw jàng dama laaj dama laaj dama laaj ba léegi waa ji da laa yem oustaz oustaz waa ji day daw jàng oustaz waa ji day daw jàng non c'est vrai déggoo li la mais loolu daw jàng la waa ji day daw jàng la nga war a jox sa jabar waaw la nga war a jox sa jabar boo ko joxee beneen xale bu jigéen a jox mu toon yow oustaz xanaa question bi daa tàng yow yaa ngi nit ñi naan wax leen yow xanaa da ngay wut fooy jaar yéen ba pare nag yaa koy joxe wax nga nga yow yow lañ diine ñu laaj la ci diine nga ne ba saa loo ci ma pare ma pare li ma wax nga demal nga demal xalil loo ci wax yow léegi xanaa da ngay wut rëppee dama bëgg ñu xam ni saa ñu xanaa nii jàngoo ko na leen leer ni jikkoy kàkkatar pire moo ne ci moom ah moo doon wax naa leen bàyyi ngeen wax waaw du ma leen bàyyi ñu wax déedéet wax na dëgg escroc la déglu ba question bi daa tàng moo tax mu bëgg ñu ko wëndeel doo ñu ko jox yow a sa question nga ko tontu non damay ñëw ci li baat bi xoolal bàyyi ko mu toog li ndaw si laaj leer li son yi bu wax laay wax waa ji man jàpp ma ne oustaz oustaz man d'accord ma ak son yi bu tey man waa ji d'accord ma ne dafa changé classe d'accord ma ne dafa daw jàng parce que son yi bu nee na ndaw si tam am na droit ci loolu waa ji def xam nga li ji góor jigul jigéen parce que ndaw si amul droit tere boppam waa ji benn donte xuloo am na même bu demee ngaay génn ci biti dem alanduuti ba xolam sedd bu ñëwee tam jigéen ju nekk yaa war a nekk sa seytaane jëkkër yaa war a mokk mm. Mm. mais mm. tere sa bopp sa jëkkër eh. amul benn charia charia nag gazuwaal gazuwaal bi waaw waaw xalil nga ñuy taatu xalil damay ñëw directement ma ñëw su suka ah suka ma ñëw xalil sëy lan moo tax ñuy wax sëy sëy lu tax ñu koy wax déglu leen ko waaw lu tax ñuy wax c'est confi confiance. te confiance dégg naa benn xale bu jigéen fan yi muy wëy wëy waam solo. Mm. wu neex ci biir nekk sëy. Mm. Eh? waaw muy lan. fan yi maa ngi ko dégg nit ñi di ko lu ne ñu koy ñu koy def. waaw dama mel dama dégg mu ni. Euh, wëral fu la neex. waaw. doo gis ku mel ni man. waa yow rek laa. taamu yow rek laa taamu. soo tëddee. nelawal na nga nelaw. sa ginnaaw ba dagg. waaw mais defal sa ginnaaw. très bien xam nga sëy. xam nga sëy waaw soo tëddee na nga nelaw waaw yow rek war naa fépp yow rek laa taamu waaw xalil soo tëddee na nga nelaw mm, confiance la dëgg la waaye boo amee ci biir mariage day neex wax nga léegi lu sew loo déggul nee nga yow xalil ndaw si est-ce que dund loolu kii wax wax ji ni ni ma ko déggee man dafa mel ni lu mu dund lay nettali xam nga charia dafa am lu mu bëgg ñu xam ko dafa wax ni wallaati taxaafuuna nusuuzahunna mooy lan jigéen ñi nga xam ni seen i soxla lañu ngeen ragal seen diggante yi ay problème ay ñagas ñagas yàlla ni faxay so woon na xam nga luy faxay so woon na jàppal sukkaa nga jël ko yow Aboubacar àndal ak moom resto jëndal ñetti tisi jeesneer yu bokkul benn couleur nga waxtaan ak moom wan ko ni nga ko bëggee wan ko ni nga ko soppee jëkkati neer yi jox ko ngeen reer ngeen ànd ñibbi xolam bëgg kontaan faay zoon ma ñëw ma faay zoon bi dee kuy daw jàng mënoo ko jëndal dara déglu ma Sidi va à l'école moo tax mu ñëw ci kër gi waaw ma ñëw balaa balaa balaa balaa Sidi va à l'école moo tax mu ñëw ci kër gi waaw damay bañ ñu dévier mais ma rek ma leeral saa ma ñëw yéen a ngi kon si jabar sa soxna neexal ko waxtaan ak moom. waaw loolu dafa am solo ci biir mariage. kon xam nga yaa ngi communiquer ak moom. jigéen da ngay communiquer ak moom. da ngay waxtaan ak moom. jigéen jarul waaw ba ci amul problème. gis nga yi ngay dégg nag sëy di biir nekk day neex ay neexal ak ay saf safal na saf saf. Eh? l'essentiel na seen diggante am confiance. na lu mën a doon na neex. lu mu ci mën a doon dañ koy defar. Ah. ba wallaay laa ji sama sœur dañoo bokk ñoo bokk sama benn sœur ba dem dama dugg néegam yàlla ko yàlla may borom kër. ma ni tëll néegam néeg bi neex ma ne ko ah non dégg dëgg nag dëgg nag sa cuuraay bi nag neex na yàlla la yàlla may burum kër jigéen dafay jonge soxe ba oh. soo jongewul nag bokk na ci li tax ngay mer may mer xalil di mer dëgg la de yàlla ni bu ngeen waxtaan ak ñoom ba pare na ngeen def le tout nag nag nag nag ah ah fa ayzuhunna wahjuruhunna fil ah, madaji ah. mooy point bi gàddaay leen leen ci lal yi attention sa soxna charia ne wax nga déggul bàyyi kook lal bi bàyyi ko mu tëdd yow nga wàcc ci suuf. dama la fekk ci suuf. bu dee jonge nga te xam luy sëy bàyyi ko nga tëdd ci suuf mu fekk la ci suuf chère ni la génneel bu mais bu dee lalu séeri kaa ñu daje nag léegi nag soo ko mënul oustaz bu dee lalu séeri kaa ñu daje dama ni soo ko mënul baax mooy lalu yu ndaw yi baax na soo ko mënul chère ni soo ko mënul ah wadribuhunna na ngeen leen dóor xale bu jigéen bi nag laat ni xale bu jigéen bi laat ni nee na nii nee na nii nee Ah. boo koy bi charia wax waaw dóor bi. door bi charia wax dañ ko war a xam. charia nee na ni ñu dóor. waaw est-ce que charia dafa ndax eh, déedéet. Ah. nee na nii nga est-ce que bule. <laughs> waaw déedéet. jàppal sa mu daan. déedéet charia ndax dafa wax nga de sariya waxul loolu. lu mu wax sariya dafa kay dee ko raay muy nelaw. aw waaw loolu mu wax yow fii mer noo koy raayee muy nelaw waaw kay li wax day téere day téere li mu wax dóor bi charia wax ngeen déglu fii comme dañuy jàng charia dañu nga wut benn bant yat wala yat yat rek bu ndaw bant yatu kel wala du yatu kel de waxul yatu kel waxul yar rek bu yam bu yam rek bu yam nee na nga jël ko heureusement sax ba ma solee ba ma soloo nii pour mën koo expliquer voilà charia nee na soo ñëwee na nga jël sa lii nga tapp ko fii nga jël yar bi nga di ko dóor moo bi dar bi dóor moo nii waaw bi dar bi moo ah, lii dafa mën a saf waaw moo a léegi nag bi mag ñi loolu di comédie yow sa jabar ber loola waaw naqari sax mais sariya waaw waaw nii caw caw moo sax bu ñu caw léegi xam nga loolu góor la. waaw xam nga loolu comédien ndaw si day rek. yow xoolal. dinaa la duma dinaa la bëgg a waaw ma ñëw ma ñëw maa ma ñëw saa mu ma ñëw. ma ni la saa waa déglu. saa itam déglu. mer ngay waxal de. man ñi mën a seetlu nee nañu. jigéen ju xule ba sa borom kër dugal. mooru sariya yooyu ñuy wax. waaw benn car bu mu la ci car rek am na nitu yàlla bu mu wadal. boo perte. loolu day war a tax jigéen ñi am na mu fi bëgg a bàyyi pour dimanche. waaw mën na nag nga ko balancer. Mm-hmm. voilà question bi. Mm-hmm. Euh, lii nag du question lépp. waaw. ah léegi kan moo fi indi question lépp. <laughs> Ah, ah non non non. benn waay la boo xam ne ku ma xam la mën naa bañ a tudd turam. lippoon euh, nee na. dañuy bi jabaram am na ñaari doom wala ñett sax defe naa mais nee na dippi jabaram bi amee doom nàmpal taawam hmm. ba léegi mësutëto seex weenu jabaram eh. maanaam maanaam du bànneexoo jabaram ci weenam ma ni ko ah. lu tax mu ni sama doom du seex may seex ah. léegi nag dinaa laaj oustaz est-ce que sariya dina topp jëkkër ji ci loolu loolu ma jigéen bu ñëwee dimanche kooku moom mën nga koo tontu loolu amul benn problème dinañu seet ndax soow mi moo tax wala ndaw see ah dëgg la. ayca soomee day fekk muy nàmpal. ayca mi ngi noonu <laughs> lii moo nekkoon masala tey di leen <laughs> rappelé waat rek euh, numéro yi 60. <laughs>